caatu jaxaay at kirigu ñaari xale yaa doon ci géew gi diggante caatu jaxaay at kirigu at bi sifflé na Sitor sifflé caatu jaxaay at kirigu daan caatu jaxaay xale yaa ngi doon ci géew gi ñu ngi lewtoo daan caatu jaxaay at kirigu eh, jël na ko mbañ kirikou kirikou epati ndeysaan kirikou ak Caatu Jaxaay dabante nañ ñoom ñaar kirikou ak Caatu Jaxaay kirikou saan baax na mu bañ mi ngi dajale mi ngi koy dajale mi ngi koy dajale mi ngi koy dajale bergil na ko saan kirikou ak Jaxaay ñu ngi xeex Pouso Machine Pouso ba kaaw du ba kaaw du ba kaaw du am ba eh. nañ bëri nañ si toor nañ bëri leen ñu ñoom ñaar kiriku ak caatu jaxaay jël ko bañ caatu jaxaay li ngay songu baaxut caatu jaxaay ak kiriku Caatu Jaxaay at Kirikou am Caatu Jaxaay at Kirikou ñaari xale yaa ngi noonu ci Jaxaay at Kirikou saa ñamante nañ ba pare bañ ñamante ku la xam nga sa morom looy saf bañ ñamante ku la sa xam nga looy saf ndeysaan faax ndax mu ngi koy jéem a faax fu mu jàpp Senghor la caatu jaxaay at kirigu caatu jaxaay at kirigu waaw ñaari xale yaa ngi noonu kirigu at kirigu at caatu jaxaay kirigu at caatu jaxaay Kirikou dem na Ardo Kirikou moo dem Ardo Kirikou moo dem Ardo Kirikou dem na Ardo Kirikou dem moo dem Ardo noonu kii mooy caatu jaxaay course baa ngi koy ëpp. ndeysaan arbitre waat na gannaaw ba gannaaw ba kiriku demee ardo ñëwaat caatu jaxaay at kiriku kiriku nag mike la woon ñi yàgg a seetaan film topp mike yi xam na ki kiriku classe xalil gi xam nañ li kiriku mu naan ah, kiriku et petit lancé mon ami kiriku <laughs> kooku kiriku jël ko. kiriku jël na ko kiriku jël na ko door na ko avance booy kiriku lekk na loxo ba fàq na ko kiriku ay waay kiriku daan na ko kiriku epoti laissez mon kiriku epoti kiriku kooku ko kiriku epoti xoolal kiriku la mu kiriku la mu indi ndeysaan ñu a mi ke xam nañ ku kiriku ndeysaan journaliste yi seen yàlla seen daan mi xam nañ ne kiriku